également Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football di féliciter le ministre Matar Ba mais surtout surtout maa ngi féliciter le peuple sénégalais à travers le président Macky Sall tey ndam li ñun ñëpp dañ ko yëkkati teg ko ci dafa am ku jiitu te tey équipe nationale du Sénégal président Macky Sall mooy capitaine mais bi mu taxawee ba pare askan bi ñëpp a taxaw kenn desul ñun ñëpp gis nañu depuis début compétition bi ba léegi peuple sénégalais bi yëpp moo taxaw kon vraiment am nañu te boo xam ne am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem ñu ngi leen di xaar nag ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu sargal leen nañ leen war a sargalee lii ñi ngi ñaan yàlla ndam lii nga xam ne ñëw suñu réew tàmbali jàmm tàmbali salaam mais surtout tàmbali naataange boo xam ne Sénégal daf fiy jóge di am ndam rek moo tax ñi ngi ñaanal président Macky Sall bu baax a baax président su Union africaine bi nga xam ne dafa ko jël mu tombeek coupe ñu ko indil mu am coupe ca fa mu ne mu am ci ndam ndax Afrique soxla na stabilité Afrique soxla na orientation yoo xam ne lii dafay nekk maanaam départ boo xam ne ñi ngi ñaan suñu borom mbégte bii ñu am tey mu baawaat si àdduna bi yëpp. li gën ci mbir yi gis nañ ne sénégalais yëpp doon nañ benn ngir rek andi ci lii gis-gis ban ci waaw xam nga loolu mooy wane ne compétition bu taxawee nañ ko jaarale yoon. métti senegaal benn bopp rek la mën a doon mënul xar ñaar te tey àndandoor bii ñu am ci sport war nañ ko mën a am dans la vie courante parce que jàmm bu amul woon ci réew mi lii ñuy def yëpp am jàmm bu amul ci àdduna bi lii du mën a am kon maa ngi aussi ñaan ci barke lii nga xam ne nekk nañ ci tey maanaam mu nekk tàmbali boo xam ne reprise de conscience dina am introspection dina am ci nit kenn ku ne la bëgg ban taxawaay nga ci war a am ak lan la la war a jaral parce que la fin ne doit pas justifier les moyens lii maanaam chance la pour Sénégal lu mën a tirer tous les enseignements mais surtout toutes les opportunités parce que nag équipe bi dafa def lu rëy dafa nekk champion d'Afrique kon loolu du lu tuuti ñu jëm ci mondial ñu leen ci kañaat bu baax a baax mais comme ni ma ko waxee rek ñun dañuy yëkkati lépp delloowaat capitaine bi nga xam ne mooy président Macky Sall. alors en euh,

surtout un engagement à vouloir offrir cette coupe au Sénégal. Je prie Allah le Tout-Puissant qu'avec cette coupe-là, que nous puissions avoir d'autres euh, victoires, que euh, cette présidence que démarre le président Macky au niveau de l'Union africaine soit une présidence de paix, de stabilité, mais surtout de victoire. Parce que l'Afrique a besoin de stabilité, l'Afrique a besoin de paix, l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Dans la compétition, soyons fair play et allons-y. Manquons nañu jëli nañ coupe bi indi nañ ko Sénégal ñi ngi xaar équipe nationale. C'est On a surtout vu donc euh, l'unité du peuple sénégalais. Qu'est-ce que vous montre que quand on est un, on est Et donc, il nous faut nous faire une introspection, savoir qu'aujourd'hui, le plus plus important, ce n'est pas de nous battre, mais c'est surtout de nous engager pour notre peuple, de nous engager pour tout ce qui peut créer la paix et la stabilité.